wàllu yaa ngi nii kii mooy ami Tamba ñun ñaan ñëpp la wàllu yóbbu moom Tamba la jógee mooy yaayu wàllu bi nekk Tamba ami Tamba bu baax lool mère Baye Fall moom xam naa ne dafa teew daa waaxu ami Tamba sama doom bi da ngeen maa gàttandu si ndeysaan waaw ñu daa ko namm nag léegi nag comme nga jël ñaari éléments yi sax ñu ñëw ak Rick ñu ñëw ci sax même bi yàlla na ko yonent bi tey kontaan naa ci yow ci boole gi waali moo nu boole waaye boole bi xaw ma dara lu ma ciy réccu bokk nañu añ bokk reer boo ko tëdd di wéttaloo konte yonent bi nga xam ne nag moo ñu boole ci sa xol bu rafet ci man ci sama xol ak ci baali bi nga xam ne moo nu yóbbu di sunu doom ci xolam yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla a waaye yàlla nañu yàlla wane lewaat ci yoon bi déwén incha allah ñu àndaat ko sama xarit bi sama soppe bi ndeysaan kontaan naa jërë ngeen jëf waay jërë ngeen jëf daal lañu àndaat déwén dem ndeysaan kontaan yàlla yokk dem yàlla na ko

كلهم شعر نور واسرار خادم نين سيدنا محمد فقاد قيس ابن عبد الله بن فضلاء إن الكواكب يخفي سنير مارو للمصطفى محمد لمين صلى <laughs> الله وسلم sama seexu màkk bi kontaan naa dinaa wax dinaa ziar si ziar si xam na sey neex yi wala waxtaan yi neex yi kii daal toj na toj na màkk na baax toj na màkk na baax noonu la mel noonu la wéetale ñëpp yàlla ko yàlla mu wéete amiin amiin amiin amiin amiin laa ziar. amiin yal na yàlla fay leen. kontaan naa. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf yàlla suñu borom géej gi ay wóolëram ay mbokk taalibeem la àndal ak ay ndoxam balat ay siyaar nga salaay da wàcc na Seexul Xadiim xam nga yonent bi mooy jëwriñu Seexul Xadiim uh-huh. duggee bi boo duggee ba dem Kaaba bi nga xam ne yàlla rek yàlla nga xam ne daal réccu muñu Sëriñ Tuubaa daal boole gi nu yàlla booleeg moom soo demee Màkka Mukarrama ngay gën a xam yéene Sëriñ Tuubaa ci yonent bi ndax xam nga lu nuru ki nga ki nga ki nga doon ak ki nga bëgg ak ki nga xam ne moom nga moom nga féetale sa bopp mu yàllay kese boo demee ci seexul xaddim ba dugg ci mbiri seexul xaddim ci mel ni man nga xam ne yàlla dafa maa boole doomam ju baax ji di sëriñ Saaliw yàlla boole maak murit yëpp nga xam ne man tey murit yi laa demal maak ak gépp boo ko delloo sëriñ Mountakha Mbacké delloo ko sëriñ Cheikh ndax bi ma ajee ba pare sëriñ Saaliw laa ko kon loolu dama koy ñaanal li ma koy def daal yàlla na ko Serigne Touba gis yeneen ci bi daal xam naa ne waaye seexul xaddim yi. macha allah donc soxna Aida da ngeen première mot yi nga xamante ne moom la yëkkati moom mu jugee Màkka ci xaj bi li nga xamal nag mooy murit yëpp wala ajay ndax sëñ bi. ak yow ñaar place nga defee. nga xam ne moom buntu Cheikh. dañuy ñëw kër ga. waaw ñu ngi. waaw Paar. Bom. Tamba ñun ñaan ñëpp la Wally yóbbu moom eh. Tamba la jóge mooy yaay Wally bi nekk Tamba oh. muy Tamba bu baax lool mère Baye Fall moom xam naa ni dafa dem eh. daa waaxu mooy Tamba sama nit waa sama nit am sama doom bi eh, da ngeen maa gàttandu si ndeysaan daa ko namm nag. waaw léegi nag comme nga jël ñaari éléments yi sax ñu ñëw man ak Rick ñu ñëw ci sama même yàlla ko yonent bi tey kontaan naa ci yow ci boole gi waali moonu boole waaye boole bi aw ma dara lu ma ciy réccu bokk nañu añ bokk reer boo ko tëdd di wéttaloo konte yonent bi nga xam ne nag moo ñu boole ci sa xol bu rafet ci man ci sama xol ak ci baali bi nga xam ne moo nu yóbbu di sunu doom ci xolam yàlla nan ko yàlla fayal yàlla nan ko yàlla sàmm waaye yàlla nañu yàlla wanele waat ci yoon bi déwén incha allah ñu àndaat ko sama xarit bi sama soppe bi ndeysaan kontaan naa jërëngeen jëf waay jërëngeen jëf daal nañu àndaat déwén dem ndeysaan kontaan yàlla yokk dem yàlla yàlla na

wa kulluhum shi'ru nuurun wa asraaru xaadim nee na Seydina Muhammad الفضلاء إن الكواكب يخفي سنير مارو لمصطفى محمد لمين صلى وسلام kontaan naa dinaa wax dinaa ziar si ziar si eh, ah, xam naa bala ñu say neex yi wala waxtaan yi neex yi kii daal toj na toj na màkk na baax ah? toj na màkk na baax noonu la mel noonu la wéetale ñëpp yàlla ko yàlla mu wéetal amiin amiin amiin amiin amiin ziar amit taal yal na yàlla fay leen kontaan naa waaw waaw alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf yàlla géej gi ay wóolëram ay mbokku taalibeem la àndal ak ay mbokkam balat may siyaar nga soxna da wàcc na suba xam nga yeneen ci bi mooy jëwriñu Seexul Xadiim boo duggee Kaaba bi. boo duggee ba dem Kaaba bi nga xam ne yàlla rek yàlla. nga xam ne daal rëccu wuñu Sëriñ daal boole gi nu yàlla booleeg moom. boo demee màkk mu karama ngay gën a xam yéeney Sëriñ Touba ci yeneen bi ndax xam nga lu nuru ki ki nga ki nga ki nga doon. ak ki nga bëgg ak ki nga xam ne moom nga moom nga féetale sa bopp mu yàllay kese boo demee ci seexul xaddim ba dugg ci mbiri seexul xaddim ci mel ni man nga xam ne yàlla dafa maa boole doomam ju baax yi di sëriñ Saaliw yàlla boole maak murit yëpp nga xam ne man tey murit yi laa demal maak ak yëpp boo ko delloo sëriñ ko sëriñ Cheikh ndax ma ajee ba pare sëriñ Saaliw laa umraal kon loolu dama koy ñaan li ma koy def daal yàlla na ko sëriñ Touba gis yeneen ci bi daal xam naa ne waaye seexul xaddim macha allah donc soxna Aida dégg ngeen première mooy yi nga xamante ne mooy yëkkati mu jógee Màkka ci xaj bi li mu ñu xamal nag mooy murid yëpp wala ajal ndax ak yow ñaata paase la fee. sachet bi day ñaan a bëggee nga kontaan mhm. naan la yàlla nga ziyaare ci Kaaba ga mhm. nga naan amin ndax ambition